Lamine. da nga waar siyaar naa la. tey day jaay borom Gambia. kay yéen borom Gambia yéen borom Gambia léegi. nu bees. yow fas yow ngi am jàmm.